Euh, euh, si seen élément bi ma gis ni au début vraiment man si vous me permettez damay remercier une personne le président de la République qui a misé sur le sport sénégalais mais qui a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures non aujourd'hui je pense que il mérite d'être cité le sportif numéro un du Sénégal même, dans le basket xaaral ma ñëw ma ñëw ma ñëw je parle du sport en général. ok waaw euh, am na feneen yoo xam ne sax am na ay gàllankoor mais lui il met les moyens les autres n'ont qu'à suivre. je prends le cas de l' arena. Mhm. tabax nañ fi arena. mais arena man dama ko coow ginnaaw wàdd ginnaaw moom ci ginnaaw Macky Sall ci boobu tout ça mais la chance a fait l'a fait sous le magistère de Babacar Ndiaye on s'en félicite mais l' arena depuis bi ñu joué coupe d' bi fii qu'est-ce qu'on a rien zéro. dañ ko tëj. écoutez. oui nga jël un un bijou qui vaut plus de dix huit milliards nga tëj ko comme ça monsieur man de bu doon man. kon c'était pas pertinent le projet. si. ah mais bon mais mais normal que que ñu tëj ko. bu fekkee kenn jëyoo fa kay. waaw mais mais c'est no c'est c'est pas normal ñu tëj ko parce que. bu fekkee kenn jëyoo fa. mais bu fekkee fédération dafa na dañ koy tëj. ah fédération moom moo na sax. ma ne dafa na